asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw ba ndigal la bàyyikoo ci sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. Alaaji Abdou Baraka di xalifa Cheikh Ahmadoul Fadal waa Touba Monde bi di kuréel gi nga xamante ne bii liggéeyal Serigne Touba dong moo ko tax a jóg rawatina liggéeyal Serigne Mouhamadou faadal ci liggéey bi nga xam ne Serigne Abo Mbacke Cheikh Amadou Fadal sumbal na ko sumbal na ko jëmm ju sell jooju nekkoon ñaareelu xalifa Serigne Touba ca Dakar ca Padoa ñooy soññ mbooleen ñi nga xamante ne bii ñoo bokk ci kuréel gi wala ñu am yéene tàbb ji wala ñu am yéene ànd ak ñoom liggéey bi na am na ziar bu am fukki fan ci weeru ngir soññee ak jëmale ko liggéey boobu nga xamante ne bii tukkee na ci ndigalul Serigne aboo ba tax na ñuy soññ mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo bokk ci mbooloo mi am ci carte de membre wala ñu bëgg cee bokk waaye di waaye di leen soññ itam ci carte de membre yi ak mbooleem li nga xamante ne bii moo di àddee ji ñu war a tàbbal ci liggéey bi mbokk yi bis maa ngi noonu mu di ziar bu mag waa Touba monde bi waa Touba monde bi fas ko yéene amal fukki fan ci weeru mars wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.